xewee nii wala ni mu xewee am na loo xamante ne dugg na ci biir loo xamante ne leerul ñu leeral ko donc su ko yàlla tegee ci euh, bopp réew mi en tant que premier ministre je veux dire euh, même si on sait que Bassirou Diomaye donc moom je pense que il a le pouvoir boo ko xoolee depuis bi ñu ñëwee ba léegi qu'est-ce qu'ils disent il faut rendre compte il faut que askanu Sénégal seen koppar la ñu dugal ko ci biir ñu xam dëggantaan xaalis boobu ndax fi ñu ko dugal wala fi ñu wax ne foofu la ñu ko dugal ndax dem na foofu ndax askan wi ni ñu leen ko waxee ndax noonu la leeree loolu moo tax bi ñu ñëwee automatiquement da nga dégg le chef de l'État Bassirou Diomaye mu demandé à ce ñu jox ko tous les rapports yi nga xamante ne aussi bien de l'OFNAC en tout cas en un mot des corps de contrôle yi nga xamante ñu ngi ci biir réew bu Sénégal OFNAC génnee na ay rapport am gis nañu ko épilogué nañ ci wax nañu ci mais malheureusement ce qui se passe au Sénégal te sànq Birahim mu ngi koy wax mooy à chaque fois que mbir génn au lieu ñu taxaw toog càmbar ko xool ko dessous li nga xam loolu la ñuy wax ci li nga xam moom mooy dossier bi ñu génnee ngir mën koo leeral askanu ci malheureusement c'est jégal mais euh, dafa am ñoo xamante ne à chaque fois ce sont eux qui sont au devant des plateaux c'est-à-dire euh, je, je n'ose pas dire mais ay chroniqueur yoo xamante ne lu ñëw ñoom mbir mi fu mu fu mu en mbir mi mooy lan exactement ce sont eux malheureusement yoo xamante ne ñoom ñooy toog di wax alors qu'ils ne mesurent pas responsabilité jamono ji parce que il faut encore une fois qu'on puisse le dire au Sénégal dans un pays boo xamante ne dañoo woote une rupture et cette rupture là ku nekk fi nga am responsabilité donc mu nekk la presse encore les autres qui sont dans l'administration mu nekk ñi nga xamante ñoom ñoo nekk mu nekk maanaam nit fépp foo nekk rek rupture bi ci yow lay maintenant cette rupture là idéo parlant d'abord la ñu koy taxaw ko assise mu taxaw bu ko defee ñu jëm ci loolu parce que rupture boobu li tax mooy les hommes de médias bon si homme média bu ndaw la mais c'est nous ñun ñooy pour vraiment réorienter encore une fois les débats mu dem ci ay débat d'idées yoo xamante ne dañuy toog waxtaanee li nga xamante ne moom moo soxal réew mi. ñëwaat ci question bi nga xamante ne moom nga wax léegi xam nga voilà automatiquement bi ñu annoncé la vente ou l'achat de ces la là Ousmane Sonko dafa génn def ay alerte waruñ fàttali ko euh, bi mu génnee dañoo waxoon ne même ces contrats d'armement là amoon na beneen mbir boo xamante ne ci wetam la mooy l'acquisition l'avion présidentiel si vous vous souvenez bien moom Ousmane Sonko mu dem assemblée nationale. fa ay kàddu plateau télé yëkkati fa ay kàddu parce que jàppoon na ne jamono jooju loolu nekk woon priorité ci biir réew bu Sénégal parce que amoon na loo xamante ne gënoon na taxaw askan wi yëpp jiite woolu ko woon def ci li mais ak lépp lu muy mënti doon je rappelle encore une fois nous sommes un pays et un pays boo xamante ne boo xool wër réew yi nga xamante ne moom moo ñuy wër suñu ak insécurité yi nga xamante ne mu ngi fi am ak li nga xam moom mooy les menaces euh, extérieures yi nga xamante ne mu ngi xew déjà euh, jëm ci li moom terrorisme moom mooy criminalité entre autres donc notre doit encore une fois d'être renforcé ci aussi en moyen moo jëm ci seen i taxawaay déjà démb le chef d'état euh, de en tout cas général des armées mu ngi recevoir benn euh, lot ay automobile yoo xamante ne ñu ngi koy taxawalaat mais je reviens encore une fois sur ça lépp lu muy doon li nga xamante ne taxaw nañ ci muy audité yenn ci ay mbir yoo xamante ne régime passé bi def nañu ko mais nañu continuer ci loolu d'accord mais n'oublions pas encore une fois les priorités au Sénégal temps yi nga xamante ni bépp sujet bu jog ñoom am nañ ci xam-xam te xam-xam boobu le plus souvent moom mooy indi sax réeróo ci biir réew bu Sénégal. bu ñu fàttalikoo Birahim par rapport ak euh,